case. Mm-hmm. Okay. And now we will be going on air in a little bit. Eh, in Iwatane's uh, case, we will play your okay. audios and everything. Um, just want to make sure. Um, audio si Got audio mm-hmm. being um, and deaf as well. Ramata. Ah. Mm-hmm. Wow. I have um, I just want to make sure you said that didn't happen lately, right? And I'm about no, no, to record no. my conversation with you. Is that okay? Mm-hmm. Yeah, that's right. Okay. Uh, just to, for you to know, um, uh, lumala record So, okay. is it okay? Um, eh, when when did this happen? That hulo? We happened like um, last year, November. last year November. Yeah. No. November. What November. Last year November. Gani kani hapon? Last year November. Last year November. Singen am problem gen hulo ya uh, eh, uh, eh, nakala ya, tudangen ramata. Ramata ne kur hulo uh, eh, paos. Okay, people might they all come like made the hulo or whatever. Man akramata lolo like mel. dañoo dañoo am problème ñu neen suñ biir ñu am issues ñu ñaar ñuy xuloo di waxante lu nekk ku nekk di bëgg a merloo sa sa morom te du jël trente minutes ñun ñaar ñu nekkati like ñu meloon man ak man ak ramata yu góor wéy baat li nekku ne comme dañu xuloo ñu reyante ñu bàyyante wasut a am So this particular situation tamit is the same thing. I mean, dangin ngeen the same thing man ak Ramata tey la gën a neex. same thing, ngeen juboo di di ñaar yëpp ba ngeen wax loolu now the only thing is. same day leen juboo. same day leen juboo today jee 30 minutes man ak Ramata suñu xuloo. ok so ngeen waxante lu ngeen yàkkante lu mel peme ba pare continuer ku nekk mel ni munta musuma wax sa morom dara and that's okay with you guys. huh? miin ko dañoo xuloo ñun ñaar te daf day am suñu biir so obviously I don't know because loolu am na si diggante bu nekk paa aussi nekkul ne man ak Ramata rek la xëy na man suma boos moo dee feeñ. Eh, eh, eh, non li ngeen li ngeen li ngeen li ngeen yàkkante kay rek. I just imagine wow. you guys say all of those things to each other and the next minute you act like nothing ever happened. Hmm? na te dañ dañuy àndal si kaw loolu te taxul raamata ñi àdduna bi xam nañ ne fu mu laale oo fu mu amee problème moom nga si denc kadiga ñëpp xam nañ loolu noonu ma bëgg a ma sotle ku ma laal rek laal ko so obviously bi audio yooyu noonu dafay yàgg ba pare loolu yaaxul dara sama diggante ak raamata we friends te dañuy dafa ok ñun problème man ak raamata we mm-hmm. ma sukur man ak ramata musuñu am musuñu toog aidé sax comme suñu waxul sax we good like dañoo bindante dama dee wax ak jikaram How did the jikar feel? How did the jikar feel about that audio that you left? Inga wax ci jikar ak nono. How did the jikar feel about it? Jikar be discuss ko ak man, but bu happen ne dama don discuss ak Ramata. Ah. bi ma ko ne audios yi dafa génn so ñu doon like wax comme moom mu ngi jaaxle naka la audios yi génne and man tam I was like dama shock ma naka la audios yooyu génne understand parce que bëgguma ma so dafa lu ma métti la so jëkkëram like moom tam mu ngi just work in tam ma wax ak Ramata daf ñu doon advice te déglu na audio yi te na li ma ko faxas yëpp understand waaye daf ñu doon advice comme suñu diggante bu ñu nangu ko suñu diggante bla bla wax nañu daal waxaa lañu ko moom kilifa Ramata la te suma jëkkër la man tamit comme jëkkër laa ma la so mu advice bi daal waaye discuss ñu anything about lu nekk si audio yi xanaa di only thing liñ fa wax rek na li ma la xas ma xas loolu lañ fa wax loolu lañ doon discuss comme wax so so yow do you have any idea because loolu audio boo bàyyilante yow yaa Ramata yéen a ko bàyyilante ndax keneen ngeen ko bàyyil non non man ak Ramata ñoo doon ñoo doon xëccoo wante wax so ngeen bàyyi wante audio yi

ayo Balde amul xarit amatul xarit amatul anador change naa sama Facebook bu close ubi bu es ma ngi tobatu suma soxla man maa ngi def suma ñuul ting ma change suma namba ok tok na degul ayos dara dara dara mu tok mu gene audios yoy non te so gisee mu gene audios yoy non dafa am lu si laxasu man xamna mo xamna xam keneen ak keneen xamna waye duma def into details waye yàlla gis na yàlla dinañu aati waaw waaw my point is kooku naka la jotee si audio yow yaa ramata comme man maak yow mi wax nii um, suñ bàyyilante mm-hmm. voice note man suma ma ko génneewul yow génneewuloo ko keneen du ko jàddi soo naka la kooku jotee si audio yi. man kooku noonu man xam naa fan audio bi jógee si moom du ma bëgguma dem jéem waaye ramata xam na because laaj naa ko mu wéeji waaye moom xam na because na am loolu loolu am lu seen nekkoon on na saa ne. ramata dafa daan wax man di am keneen ku mu daan waxal koo xam ne mooy loolu. baye lol mo doon gëna in balal ma dama amone call bu doon duga ci noonu reject nako. ko ok ramata bëggoon ma wax ne comme like mo mo jëlee audio understand nga bo yee man am na am na like man xam na mo mo jëlee mo mo jox ko noonu audio because dafa am situation boobu nu doon demee tan be mane ko na music understand mhm. mm so koko nono ki gene audio yini recently like last week was it two weeks ago dafa am lu happen on so legi mom mo fogg ne man am behind it comme dege man ma ñew xala few people so mom si la dem nak xam nga mu gene audio yoyu noonu man xam naa because man am stupid man xam naa naka la fa demee ba man my hands are clean man lu waay def rek sa boppa léegi rek laa bëgg a mi clair pas autre mooy nañ ma bàyyi suma jàmmaa aw <laughs> ma jot bi buloo ma defantewu mm-hmm. ma bu ma doon sàgga sax duma la tontu suma business laatal ak suma doom suma family dama si kër kenn kóolu ma kenn kenn amul suma ma few people ñu am suma nomba mm-hmm. nañ ma just bàyyi audio yi ni mistake la réccu naa ko te métee man koo jooy mm-hmm. te ñaanuma yàlla mu dalaat ma suma àdduna soo doo tegalaati kenn bersi jamono ji kenn du la provoque ba nga tegal ko bersi no nda dore dore dorenga ko siñun munol gomna ko dore dorenga ko siñun du ko munon nga ñoo tegal bersi way tegalulo ñu right mo la tegal bersi parce que xam nga lu tax doolen suma morom ay jalo jere dafa nekk suma mag te botti mag laa ko xoolee yow tamit suma mag nga di same thing understand nga so doolen tegal bersi parce que respect do mo fa bon li ngeen def ngeen ci dama ci kanam yàlla ko joy naa te xarit na Well, na ma lu ma bëggoon ko waxoon def mistake bu mag a mag a dama ànd ak samay xel rek ma xalaat lu jot a passé yëpp waaw you handled it very maturely and I I I I I commend you for that handle nga ko very maturely unlike a lot of people that would come at us suñ waxee si ñoom ni ñoo ñëwee ni nga this one was very good so moving on ayo munzir um uh, living in munzir was the last thing that ayo ci luñ ko dégg right yes te duñ la déggaati ci beneen. Um, that is why it was surprising to us when we got the audios that with everything we said, comme ni ñoo waxee nii léegi noonu lañ waxtaanee when we talked about the Munzir stuff less than two months later and we had these audios that came out. So moving Lee on that. Way before, Lee was okay. way before um, management issue at Munzir. Munzir, okay. Yeah. Okay. Mm. No, Abana. So when I play this audio that I am talking to you on, like I said, you are on record, and I will play the other ones yeah. that you left prior. We'll discuss it. Ñun suñ responsibility is to give out accurate information. Suñ jotee information boo ne naka su la, um, we reach out to you. Suñ reach out to yow nga dégg with the correct information. We have a responsibility. Niñ waxee woon liñ wax ci yow and inshallah dinañ def So thank you very much. Appreciate na you. No, no, no, one minute, one minute. Mm -hmm. hold on. ok dama bëgg dama leen bëgg a rectifier yéen a ngi wax ne ku ma àndal rek jotee naa ko. ah Ousmane aw ma noonu. man ma kenn. ku ma bañ tam wala nga gis ne Ayoo Balde man la ma jàpp noonu. waaye man jàpp ma la noonu man bañu ma kenn. waaw te képp ku ma àndal rek nga def ma wala ma def la ma ngi laa jégalu man naa la sa na trop. waaw. ma kenn xool bu bon jégal naa ñëpp képp a tooñ nag jégal naa la. jégal nga ko te ko xamne lu na suma audio mo ci ko rek mang ngi la jéggalu parce que nit na du mot lu ci suma gënaaw nak lay joy wal lu ci suma kanam inshallah yalla ma ci yalla jappal bi duma dara proud of you to ko doxale non rek mashallah you'll be the best woman thank you very much sister i appreciate na ko aha jërëjëf aha hmm. ya rafang <laughs> kokoy sister ayo balde de dégg ngeen ko ndeysaan nak Ah, Diallo dégg nga sa sista li wax naan yaa ngi door a déglu audio bi what's your take on what Ayo said before suñ gas bi si dugg si. <laughs> ah macha allah Ousmane ah, macha allah rek laay wax ah, again ñu ñëpp am nañ lu ñu def loo xamante ne si àdduna bi we are mm-hmm. waaye nu mu ko waxee rek li si gannaawam la moo jooy waaye li si kanamam moom dina try which bokk na si suma favorite wax yi ma de wax Pa Ousmane again dégg la nit ki moom. su fekkee ah, gisee nañ ko si beneen boor mu nekk si xëy nañu bari rafetloo wuñ ko bu demee ba bugg a change nañ ko jàppale léegi-léegi dangaa gis suñ société bi boo demee ba bugg a change duñ la si dee mën a jàppale day some way or somehow dañ la bugg a fàttali ah, fi nga nekkoon understand nga mm-hmm. dañ la dee still bugg a rifaatu fu nga nekkoon ah, mm-hmm. daf dee xaw a miiti daf dee xaw a miiti mm-hmm. torop I mean again dinaa rafetlu naa bu baax man bum bum bum getee in touch with us understand nga I can feel it in her voice ne am na lu bari lu mbugg a wax but then again comme ni ma ko dee waxee rek nit ku nekk boo àndee ak sa sago nga waxtaan ak nit ki di ngeen d'accord si kaddu because ki lay jottalil wax moom lim na ma si yow ak lim xuloo la na ma si yow xuloo boobu noonu yow boo ko mayee yoon rek loolu mooy demati kon tey moom bu li yoon woon ba attaque ñu wax ñu wàcce audio mi dañoo génne wàcce te bi mooy dem kon it it will just look like never ending thing boo xamante ne moom lañ ko associate with and du loo xamante ne tamit moom si boppam rafetlu na ko o anybody rafetlu na ko kon ah, di ko ñaanal Pa Ousmane kenn ma ah, Pa Ousmane kenn matut ah, comme ni ma ko waxee rek ak yéen di nga def loo xamante ne yow sa boppa di nga toog nga ne nekkul lu rafet rafet rafetlu ma ko waaye comme sista ayu rek comme ni ma ko waxee rek get get na to us uh, get na in touch with us uh, with respect nag with respect nag to be honest nit bu liyee dafa nuyoo nuyoo bu nice mhm. dooga wax li moo wax understand nga ak dal nag ak dal waaye di ko gis si voice am kii dafa mer mhm. di ko feel si voice am dafa mer mhm. bu baax sax bu amoon yoon tey su dalutoon oo oh, tey bu ko seytaane mënoon dina wax loo uppa waaye mm-hmm. téye na boppam gëstu na waati baag ñi moo ooyee noon mu xelaatati baax ne tey lii bu waroon a dem du nekk lu rafet si man ñii seen liggéey lañoo def te foog ma bàyyi la ñu def seen liggéey te foog ma mën a waxtaan ak ñoom ma understand ne liggéey la ñoo def te si biir waxam wax na ko seen liggéey ngeen a def waaye tamit mun naa war a waxtaan ak yéen kon ak yéen I will be so happy to make every Gambian Bahalenani. Uh, I will say uh, kudos to you, uh, Sister Ayo. Um, I just want to apologize to her. Jigenla, I feel for her that she has to cry because of um, wax especially si binga hamene then ne binga ko then bi ko loolu is very important mu secondly mu respect ñu like I said every time ni tëggal ñu bersi call na la wax ak yow ten ñu audios ma call ko mu open buntam still wax ak ñun going pour tëggal ñu bersi you just gonna make it more every day because it doesn't matter what she does mom ayoo ak keneen ko munti nekka du tere ñun ñu wax ci yow as long as you remain to be that celebrity. You continue to have the status you have. And Mom Ayosi Bopa, well, like other people will argue, ana ayo ban celebrity la lan la ayo def yes he's a celebrity because ñu ngi nii di wax affaire am te ñu na ngay wax affaire am I always say it a celebrity is a famous person koo xam ne waxtu bu nekk ñu ngi waxtaanee affaire am rawatina si media koo xam ne mu ngi def a lot of people know about them it doesn't matter ndax si lu baax lañ ko xam si lu bon lañ ko xam ak luñ ko munti xamee the fact that you are doing something and the media is talking about you and you are known all over Sula media waxtaanee wut sax forum ba people know you around your area your kabudu your neighborhood celebrity nga so kuy munta defin ñi deny man duma celebrity duma li duma lele ayo is a celebrity and she is no exception we will talk about her so the way she handled it i am proud of her now waxtaan naag ñun def naag ñun very maturely léegi the problem is those that spoke to ayo ñi nga xam ne ñoo suñ audio ak ñi nga xam ne ñoo génnee audio ayo bi by the way and be quick to um, inform you guys ne Jatumbo is our guest mu ngi jéem si right now as soon as she comes in we will move on but Jatu is trying to connect we've already reached out to her she's trying to connect but whatever the case is rek ñi nga ne ñooy audio si wax nañ ko si gannaaw was quick to say ne you will she would not be surprised suñu yóbboo this audio we are talking about Fatoumatta Daf to her the same thing applies to Ayo dañ def show mu pare ñu jël audio bi ko Ayo waaye ku dee si marché yaa tàggee sa boppa ñun tooguñ jow kenn wala nobu kenn képp ku ñuy wax dañ lay taag képp ku ñu fi waxtaanee tey dama la taag Mama linger Sarr gis ngeen mu dugga dama ko taag si yëf yi mu xam ne ñu ngi ko ñu ngi wax ci moom Fatou Camara dama ko taag mu xam ne ñu ngi wax ci moom bay Babu dama ko taag mu xam ne ñu ngi wax ci moom Ayo Balde di same thing Fatmata ma kooka di same thing waaye xanaa kay kuy nobbu kuy dee si marché yaa tàggee sa boppa ñun nobbuwuñ ci li ñoo def not going to create anything about anybody. The IO audio, is it IO Balde? Yes. Moma ak na ci nekk di wax moom la but the only thing that is wrong here is ñi circulate audio like I said ni ma ko waxee dem naa béréb biir Seattle gi ñi ñooñu di ko waxtaanee and other people who claim to have gotten these audios definitely ñuy circulate audio si dañ war a bàyyi suñ xel bu baax a baax laaj naa ayoo nag pour mu wax kan moo ko jox audio kan mo génne audio si because moom ak xale bu jigéen bi ñoom ñaar la seen diggante ñoom ñaar ñoo exchange audio si if it happen to go to um, uh, uh, uh go through the hands of somebody else somebody is responsible either mom or xale jigen jigéen bi ñoo ko génnee mu ngi wax ne moom génneewut audio bi xale bu jigéen ko génne but whatever the cases nañ leen di bàyyi suñ xel su private conversations happen we keep it to ourselves because that one person you trust that she trusted that wala ku freinam bi ramata trust kiñ seen audio boobu noonu kooko ko seen keneen kooko seen ko keneen kooko seen ko keneen bem egsi si ñun bem egsi si ñun whether koko you send directly, kenena ko send koko, kenena ko send koko, kenena ko send koko. The bottom line is it got to us and it got to other people, people around the world. Like I said, when these people were talking about this, and I was present, they didn't even know that I had the audio and we were going to talk about it on Celeb Avenue. Then talk about the stuff that is circulating on social media, stuff that's circulating everywhere. And yes, li dafa yaxa dari ayo nak. Kepa ku def li xamal ne dafa ayo because fi ma nekkoon noonu ñuy wax sax they didn't feel sorry for ayo everybody was saying the same thing deram is deram dafa yàqu every time indil ayo bile ayo ci bersi rek lañ koo dégga tëggal bersi rek saaga ndey ak yooyu lañ koo déggee wéyam rafetul foofu xaw ma beneen de yu paase de waaye bii moom dañ ko tooñ ku def loolu danga ko tooñ bu baax a baax a baax because she has moved on and is going about her business has changed her life and like I said, she manifested it to us. you want to us and acted rudely wala mu act anyhow tamit we will say it. Anybody who wants to affaire nga reach out to us, we talk about you we come back and say ne reach out to us. lii ak lii nga wax nii ak This is not to bribe her in any way. That's how she handled it. tamit the same way la and it proves to that she changed her life and she is moving on. So kon ñi jottali nañ seen xel bu baax like I said ñun as a media house suñ jotee anything dinañ ko waxtaanee te niñ koy waxtaanee will be pour aide la ee la eeyale ñeneen it's not about her alone and every advice we gave her su fekkoon ne this audio is recent Foguma Jallo will bow down. man, Pa Usman, I'm not bowing down on any suggestion I gave to Ayo on that audio. Sufekone, it is something recent. Now continue with her life she is beautiful. She is young. She is intelligent. She has brain. She is creative. She has all it takes. She's a mother and she also is a woman and she needs to go ahead with her life. And that is exactly what she's doing now. So ko create, ku calculate ban interest nga si am because danga mere ayo because danga am a grudge against ayo because danga feel ayo is growing whatever the reason is i really don't know the first mistake, Nakfufu, Mom Akharitambi, whoever took it out, is the first person that made a mistake. Then Kiko circulate. Whatever Losibuga achieved, you have tarnished the, her image. You have gone about showing, I mean, the world, the side that you know is very wrong, lying to the whole world and the person that brought it to me and um, it, eh, eh, sources on me, wherever it came from, those that insinuated that the audio was recent, it is false. It's false. IO said this is not new. And if we have any evidence, if anybody has any evidence, na IO aki saying um holobi audio bobuno is recent, it just happened recently. You bring it, we will come back and correct it. So ak munti wax tomorrow if we were to have new evidence that IO lim ñu amut, we will bring that new evidence to you guys. Our role is just to inform and give you guys the right information. So kepa ko xamne ya ngey dara, I mean be careful what you take out there ñu ngi leen wàññi social media bi bàyyilante voice note yi ak videos yi on whatsapp mu ngee toj dëkk bi si jamono jii mu ngee yàq àdduna bi si jamono jii people are using it as evidences court yi ñu ngi ko use as evidence am security ak law enforcement ñu ngi ko use as evidence federal government ñu ngi ko use as evidence you name it it is something that can be used against you and once it is gone you never know fan la àgg and either we sit here that we talk about this obviously ñi ñu déglu that day there could be 70 percent or 80% of ñu ñoo déglu ñoo xam deglu dégluwuñ ñu last time liñ déggoon si ayoo kerak rek la they may not hear this one liñ wax ci moom ñiko circulate on social media the same thing they may not know um uh uh fan la audio bi di àgg ñu dégg ko rek ne recent la maybe sax am na nu demee ba tey ji audio boobu mu ngi circulate ñuy wax ne lu ees la Ayo Balde moom mu ci fight rek mu ngi ci lii mu ci lële so you have caused her a lot in her life and it is not okay du fem bu ndox pataasut and I am appealing to you to apologize to Ayo and anybody else that is circulating this ni ma ko waxee woon last time do not circulate any audio boo xam ne dafaa any audio boo xam ne dafaa dimi nit any audio boo xam ne yàq caractère nit any audio boo xam ne dafa wàññi nit any audio boo xam ne dafa ñàkkal class nit whatever the case is muy audio muy video or whatsoever don't share it with each other do not share it with each other ñu ngi leen a bëggee Celeb Avenue ngeen nekk di déglu ci Gambian Talents Radio Jallow jëri nga come up rek euh, ñu jële quick break ma jokk suñu guest bi seet depuis si gannaaw ba tey mu ngi jéem a try waaye yu fi Gambia la Jallow you can go ahead while ma jokk suñu guest bi Apa Usman, I think wah nga eh, wah wah eh, eh, nga hingga wah di, nga wax ci gina Usman loolu Pa Ousmane hankay yow boo waxee rek gentleman di gën apa Usman, ah tak Ousmane yow tamit gentle ah no man wah wah apa Usman boo demee rek man la nak sak nax sax neex Ya dia dia. ñu ne ñu stif yi ñu stif yi ñu stif yi ñu ne ñoom rafetlu wuñ kay si jentel naka njongoma challenge bi <laughs> kon ñun nag dinaa ko teg upon mi tey moom xam naa seen xool dina dog moom dinaa wax yi si jongoma bi bam saaf axan kañ def ko si bem suk saag ni jotu moo duga si na de ndax joojo laay gis hmm? Oh man, that's the boss pig right there, man. Hi Jatu. Hi Jatu. <laughs> Hello Jatu. Hello Jatu. Oh man, Jatu Modu Gasina, as you guys can see, but unfortunately muna going kogis. If yangi freeze, how you? Dafa mute, dafa mute, dafa mute bopam. Nunga you fi jollof rek. Jatu Mbow. Wat kom onmute boppam. Boss Chick allo Boss Chick waaw dafa mel ni ndeysaan jatu demaat na ah ah jatoo ngi jéem a dugg si ndeysaan all the way from the Gambia kii mooy Boss Chick from Dreams ah kii Boss Chick the actress kii mooy Boss Chick as far as we know um, the first Gambian female DJ that was playing female club DJ ah. a kanam bi fan la dugal dugal si yaa ngi yaa ngi lool. <laughs> ah non dama doon lifin rek taal pour ñu gis jatu boobu fortunately noonu la fa taajoo ah jatu nag jatu keneen la nag kenn du jatu bu leen dem fenn bu leen dem anywhere laa wax ñu ngi nii pare pour jàkkaarloo ak jatu boobu nag pour waxtaan ak moom kii mooy di boss chick waaw dafa bari bagage bi dafa ma jëndal challenge bi dafa ma jëndal challenge bi bala ñoo dem on break the past one week one month yëpp ñu ngi jéem a indi Jatu Mbow and it's unfortunate ne um, uh, munuñ ko munuñ ko am um, ah jàlla jéeri lu tax man su may suyee ak yow ma gentleman <laughs> <laughs> man su may suyee yow may gentleman ma indi gentleman my sule yow may gën di gentleman ah Itu maag suma suma arms ya, ah sleeveless ah sol suma def suma lu tax man suma solee suma ma gentleman sleeveless jordan rek ma gentleman ma gentleman eh. eh. ah lu tax suma solee sleeveless ah may gentleman suma ada yow show lu tax si jotu mbaaw dugg a rek man ma gën ah, di gentleman ah lu tax man si jotu mbaaw dugg a rek ma gën di gentleman oh man Jatu is coming in and out I'm difficulty with Jatu right now ah you know what I'm saying waaye ñu ngi leen a bëggee bu baax a baax a baax di leen dalal di leen wax ne yéen a ngi déglu Celeb Avenue jógee fii ci Gambian tan. dañ ñuy bàttali jottali rek képp ku ñuy déglu ku ci waay mënti dégg ah képp ku ñuy déglu rek ci ñeneenti ko ñi àdduna penku xarpu ngapp wala ngalandu ni lañ koy defee saa su nekk seen favorite show la jógee ci Gambian Talents Radio Jallow Jerry Pa Ousman ni ma ko waxee ci gannaaw nag tey Jallow moom dégg ngeen mu wax ko mu ngi noonu di xaxataay mel ni ku log dorog wala ku tuxtaay jurom fukki at dinam bi <laughs> dégg ngeen dinam bi li muy def waaye nag di ko bégee rek ndeysaan ak lu mu feebar yëpp na ñëw on air amin pour jàppale ma rek te make nak nag duma seetaan ma fi ñaaw ah, jatu mboo nag ñu ko jéem dugal si jamono ji nii ba den su rek nañ ko am ah, gambino mu ne pa os stop smoking super kanja ah, wow mati njaay mu ne you doing a great job Wow. yaasali njaay mu ne pa os your com inspector Derek <laughs> Sister Bulmarello, why? Come Inspector Derek Nono. noonu uh, well the investigations we do I'm xam naa ne mu ngi bindoon loolu si gannaaw bi ñoo wax um, affaire yi ayo ak reaching out to Atib Janneh and all of that we have to do what we do liggéey bi daf ñu laaj ñuy follow due diligence as much as we can duñ ne every time we hundred percent on point but ñu ngi góorgóorlu di try luñ mun yëpp to make sure that um, anything that is worth um, following up ñu follow up ko with the right people. If you put it out there, if it is already out there, if we don't need any more information to do our analysis, that doesn't warrant it. Just, and again, we are going this route to say this because our people don't seem to get it. A lot of times, we see it um, uh, different places. We accept it. We watch it. We are interested in it. The same way niñ waxee ci Ayo last week and it was kind of damaging to her. This week ñu génnaat work something that is in favor of her. The same thing any other person that is talked about on the avenue. Our role is to give out information. And as a celebrity, as a public figure, you are supposed to be a role model to bépp anam lépp looy def nag danga koy nuru ci jikko bi nuru ko ci melo bi nuru ko ci tur bi nuru ko ci jomma but you are no longer a private person. You are no longer an ordinary person. Your information is out there. If you were in other countries, paparazzi follow you everywhere, taking every move and every action. Select Avenue, I don't think is very bad, but it is seen looking bad, um, uh, uh, looked at bad by our people because we are not used to it because we are used to sweeping things under the rug. We are used to satisfying each other. We are used to the media just coming and um, uh, uh, asking us, Kepa ko am interviewing you large la, wow, kan nga def li, ya fi njaka def li, hail la, praise la, the uncomfortable part of your life you don't want to talk about. ku dem ba pare nekk celebrity ku dem ba pare nekk théâtre kat ku dem ba pare nekk woykat ku dem ba pare dawkat ku dem ba pare a public figure ku dem be pare a um, media presenter whatever role it is that you want to play in society so demee may be ko rek nga xam ne you are going to be talked about nga xam people are interested about you people are interested in what you do and there is no way you will escape it New Gambia and I hope our celebrities learn to understand this. Lot of man suggestion about the rek, majendi gentleman. No, actually, Muge struggle like the past 45 minutes. Jalo Muge struggle. I mean, I guess it's not coming well, along. Um, I have tried to unmute her, but the thing is, the network is frustrating her and it's not coming out right. I mean, it's unfortunate. Nanono la fatajo Jalo, go ahead. Rek ma jokog mom si but we can come sometime get them, and we will not be able to exhaust all the questions that we want to ask her. How about we schedule her for next week? Uh, new wrap up. Um, that is what I am texting Lola Kodinitagum. Great idea. Go ahead. Yeah, uh, Walter also is on it, coordinating with uh, just a moment. I also must wait say. Ah, wow, Osmo Swetsi, mom, boga, boga, uh, fair about the boga, that's it. You can fair about the lag, mom hankan fever vi fever next week wala bala election timens hankan na wér tane bu baax small boys bi mu gën a clair ah. yàlla defaral ma jaama defaral leen ñi nit jaama yéen ñoo déglu bàyyi seen soxla déglu ñu ah, ñu ngi leen bu baax a baax a ñu ngi leen because ah, tey ñu ngi ñëw late ñu ngi waroon ñu ko waroon a def two hours ñu ko def two hours late kon ñu ngi leen a bu baax baax because dëgg consistency dafa important it is very important so you get try uh sin kemta like uh put in the ko on time uh yes uh tamit di leen ñaanal seen wér gu yaram xankañ wërsëg bu bari yàlla yoka new yoka new yokkañu yokkañu waaye tey suma suwet bi mooy tey comme ni ma ko waxee rek xankañ jongoma challenge bi again uh, to each their own and I feel like ñun us Gambians sometimes if we cannot do something and we feel like keneen mun na koo def with feelings rek dañoo am pour yaaxala you don't see yourself doing a jungle challenge, that's fine. And then you can move on. You either hop on it or move on. There's nothing, there's nothing to say about it. Like at least i am a little bit live. You hmm. know, at least it's something I'm did. It's trending. Everybody is doing it. And if you feel like you're confident enough, and come never go ahead. Sometimes it's okay to look yourself in the mirror and say, damn, I'm beautiful. There's nothing wrong with that. Look at yourself in the mirror and say, damn, I'm sexy. You don't have to wait for anybody. fekk nga beautiful wala nga sexy nag. Fekk nga beautiful wala nga sexy. Ndax Jigen, ñëpp <laughs> a beautiful, Jigen, ñëpp a beautiful, Jigen, ñëpp a sexy. Sexy is a state of mind. Waaw soo jigéen ñëpp beautiful, ñëpp a sexy. It's a state of mind. Blue Pa, Usman, if you feel like you're beautiful inside and you feel like you're beautiful, Ah. You don't uh. need any acknowledgement outside to tell you you're beautiful. You don't need anybody's approval to tell you you're beautiful. man plus You still don't need people to tell you you're big. It's all about the confidence you're building. You don't need anybody to boost your confidence. You do it yourself. Because if you're waiting for us Gambians to tell you, damn, you're beautiful or damn, you're sexy, it's not going to happen. It's not going to happen. Never, probably never. So you have to stand up for yourself. Tell okay, yourself. jalo ara stress um, relief for the day. A monkey and a baboon were seated next to each other during a service in church. The pastor said, Turn to your neighbor and say to them that you are beautiful and adorable, adorably created by God. Monkey looks at the baboon for a moment then laughs out loud and tells the pastor, Tell him yourself, I don't want to lie in church. Tell him yourself, I don't want to lie in church. Well, I'm telling you, beauty, beauty lies on the hand of the beholder. Understand? That's why I said, if you're uh-huh. waiting for people to tell you beautiful, beauty, beauty comes in all shape, form. It doesn't matter. If some people can be beauty, they can have inner beauty, and they are beautiful still so beautiful. Some people can have outer beauty and they're not beautiful inside. And looking at particular, sometimes outer beauty counts, but inner beauty counts the most. Because if you're beautiful like Lady Diana or Beyonce and you don't have the inner beauty, mm-hmm. it's just crazy. Who want to be with an evil man or an evil uh, woman? Nobody wants to do that. Understand? That? But yang is if you have uh, the inner beauty and you look young, padanga ba and all that, you don't need anybody to boost that confidence. Yo, hamga how you are, the person you are. If you're beauty on the outside, that's fine. Embrace it. Whatever you are, however you look, embrace it. You don't have to wait for people to do that for you. And we have that problem for Pa man. And we're here talking on the radio. Union Ampu Wahlenko union and put put that in their mind But Usman, gaaw leen ni dañ they gawa gawa gawa <laughs> gawa. gaaw a gaaw a gis seen te dañ dee confidence understand nga and that's why tey lii mu nekk suma sweat But Usman, jamono no buma nekk ni. in my thirties mm-hmm. honey nobody can tell me nothing I'm telling you nobody hey I will look at myself and say I'm beautiful honey mm-hmm. yes I am all that even if some people say if they think they're Lolo Amna, but myself, I have to acknowledge it. with the outer beauty, but I know what I'm capable of. I know the person I am. This is what I'm saying. So you say crying, you get your upper laming. So you say crying, you def you bare bare bare, you nyamay ko. Because dañ óolu seen boppa da ngaa gis grand boo xamante ne xamut lu bari da nga go like the ne la waaw te gis nga why the person is doing it mu jànga for the first time Mm-hmm. So, ko ne mu ne na ah ga garaawut dina dina ñëw dina ñëw dina ñëw nunu la mo defee mu defati ko defati ko ba mun ko because confidence buñ am si ñoom la duñ dee gaaw a wax so mm-hmm. because yow da nga feel like ne you don't have enough confidence in you you don't have enough you you will downplay the jungle my challenge mm-hmm. if you gonna do it that's fine that's cool with it just say hello or bye. <laughs> That's right, you know. Let's move on with our life. Uh-huh. Life is too precious to stress about things. Mm-hmm. You know, life is too precious to mm-hmm. stress about things. So, as I am saying this, we are all beautiful. You watching me, you're beautiful. You're beautiful, you're beautiful, you're beautiful. And continue to tell that to yourself. You're beautiful. Don't let anybody to downplay you or tell you you're not beautiful or you're not sexy. Mm-hmm. Your sexiness will not be another person's sexiness, mm-hmm. but your sexiness will be somebody's sexiness. So Cherish it and embrace it. Wassalam jërëjëf Diallo kàddu gi rafet na pour fàttali gaay rek ne Jatumbo ndeysaan struggle na ba struggle em ndeysaan pour dugga si baron fortunately unfortunately ni mu fa taajoo daal situation bi alaawut ko mu ngi noonu di xatara yu yenang ma fi teg ba time bi ma ne ko moom moo umu mu ne ma déedéet déedéet yéen umu mu ne <laughs> mu ne ñun ñoo umu ma ne ko one month we've been trying to have you and um, you've been <laughs> naka du dee mun a nekk and like so Jatumbo definitely hands down we've rescheduled her for next week my sweat will bring me Tony message I'm about to read. Like Fatmata Rahma Kokamune, thanks for the tag. I already know what it's about. Go ahead. Eva already did part one. Things happen. I will watch when I have time. Love you guys. Good luck. Uh, pour loolu foog naa firnde na li ma wax ci gannaaw képp kuy àggee gaay message kuñ wax sa affaire loolu mooy suma souhait man rek ma tënk ko in one minute képp kuy kuñ wax sa affaire ñii génn di déglu di génn di leen àggee message xam leen ne these people are informed even if you are not my friend suñ I pour drobal la ko as an inbox message sax pour wan la ne we are talking about you we do it pour wan leen the extent to which we go just to make sure they hear it from the horse's mouth instead of your miko age so nga toog ñu waxtaan ci Fatoumata Makuka ñun wax nañ Fatoumata Makuka tag nañ ko si bem xam she's she is gonna be talked about the same thing with Ayobalde. the same thing with Mama Linguère Fatou kamara ak keneen ak so ñuy àggee message man dinaay suma sweat find something else to do let us stop spreading rumors let us stop spreading fake news wala suñ demee bay joxe report let us not present it like we care that's why fekk yaa ngi jéem a kis kisi kooku yaa ngi jéem a gestu kooku pour seet what it is nga bugg a tàngal xolam bi ba tax nga wax ko ñun liñ waxut and oftentimes that they happen when people I mean hear things ñu dem ñu déglul audio bi seen boppa wala seetaan video bi ñu ñëwaat ñu ñu xay te yéen du loolu ngeen wax di and I can name names of people ñoo xam ne jaar nañoo ak ñoom foofu ba tax ñu block ñu or otherwise so loolu mooy suma souhait ñu ngi leen a béggee di leen gërëm di leen sant bu baax a baax for listening to us send um, uh, uh, comments yi are very interested interesting lil si mu ne I know I'm beautiful LOL haters will say I'm alright or ugly Hey haters, I see you. Um, Mina Jani Tamit mung fadi. um, Hatarai Wahna Lulu Mom Tamit, she's talking about um, the beauty money. I'll get well soon, Jalo Jiri, Mom Safevar Villa, Wahno Monega get well. Um, um, George Temunenda Mina Dafa Nelaw, Mina Mone did Nelaw, Dafaneka di Yon, Rexi ji. Kepa Kunyu Deglu in Setan ji. Celeb Avenongen don't Deglu Jogi Gambian Talent Radio. Man Sumaiso Ak Jalo Jiri, Damai Gena Gentleman. <laughs> Gambian Talents Radio Pa Ousmane loon ak Diallo Jeri rek di leen jox dig daje ba ëllëg ci sentiments ñu génnaat leen feneen caga ju ndaw ji caga ju mag ji jege mari yeeg jeeg ji waxambaane yeeg paay tomorrow we promise we will be on time hands down we will bring you a good show tomorrow to make up for what we miss with Jatu next week in Indian land Jatu Inshallah, allah tomorrow we'll try to bring you a great show di gërëm di santa for listening to us for following us Um, nii ci Talents Radio um, till we come your way next week macha allah am um, ànd that Alieu Badara rek jërë ngeen jëf waay allah.